ça veut dire que euh, loolu day poser le problème éternel bu ñu tegoon ci table bi mhm. Mhm. c'est-à-dire Macky Sall waaw quand il a été élu mhm. en fondamentalement il a été élu sur la base d'un programme bu ñu basé sur des questions de bonne gouvernance mais aujourd'hui concrètement les tendances ne montrent pas des avancées substantielles dans ce domaine-là yaa ngi comprendre ma la mm-hmm. c'est-à-dire aujourd'hui bu ñu xoolee bu baax xayma bi mm-hmm. sur la base des indicateurs yi gars yi pour def seen analyse mm-hmm. affaires yi avancé wul de manière substantielle et le peuple les Sénégalais ont toujours le sentiment que les prévarications détournements yi day continuer mais la rigueur de la loi ne s'applique qu'à certains Sénégalais pas à d'autres c'est ça les questions de fond loolu moo tax c'est indice de perception bi loolu lay joxe mm-hmm. perception indice de perception mm-hmm. je pense que perce la perception c'est important maanaam nu ko sénégal sénégalais gisee gisee nu ngi koy sentiree indice de perception évidemment du point de vue scientifique il y a certains aspects qui peuvent être remis en question ci mm-hmm. démarche bi mais aujourd'hui tey des progrès substantiels dañ ko nar def le président Sall dafa nar a jël affaire boobu à bras corps parce que c'est une obligation et c'est une exigence mm-hmm. du peuple sénégalais pour ñu gën a répartir xaalisu réew mi pour xaalis bi bañ a demee benn bor kese mm-hmm. parce que temps yi ñu dégg mm-hmm. Moustapha Diakhaté doon ko wax ci jiw ju affaire yi loolu c'est Cissé Lo Moustapha mais c'est un scandale comment des Sénégalais peuvent entre eux di pàccoo jiw jiw réew mi mm-hmm. ñoo xam ne sax des fois duñu béykat mm-hmm. ñu bàyyi béykat yi de côté mm-hmm. c'est un scandale je pense que culture pàccoo boobu loolu lañ nar a combattre en premier et je pense que aujourd'hui par exemple c'est des priorités yoo xam ne nit yi dañ ko nar a ñefee pour changer les choses et que Macky Sall euh, le président Macky Sall à ce niveau-là il y a des échecs patents Mm-hmm. dans ce domaine-là. Mm-hmm. parce que mm-hmm. li nga ko li ñu ko éliroon en 2012 fondamentalement c'était sur des questions de transparence et de bonne gouvernance pourtant am na ay instruments yu mel ni nag mais attends mun nga mettre en place dispositif yëpp. mais jox leen pouvoir même bu ñu amee pouvoir mais aujourd'hui par exemple boo xoolee le cas de nag c'est vrai. am nañu loi bi mi ngi ñoom ils ont cette capacité de saisir directement la justice et cetera mm-hmm. mais c'est le mécanisme de nomination ñi ñiy jiite OFNAC mm-hmm. président de la République il concentre trop de nominations à son à, entre ses mains mm-hmm. tey bu fekkoon ne par exemple dañ doon def une concertation laaj les groupes mm -hmm. groupes de métier les corps de métier ne magistrats yi par exemple union des magistrats du Sénégal désigner le président de l'OFNAC mm-hmm. OFNAC dina demee neneen laajte les différents corps de métier yi composé par exemple le comité directeur ou xawma conseil xawma lan du de OFNAC ñu joxe seen représentant mm-hmm. affaire bi doon na demee neneen mm-hmm. et que aussi ça pose aussi l'épineux problème de l'indépendance de la justice les réformes en profondeur yi UMS di teg ci table pour qu'il y ait des réformes en profondeur du secteur de la justice pour que justice bi mun a jël en boppam en charge pour que le président arrête d'être le président de du Haut Conseil de la magistrature yooyu yëpp c'est des réformes en profondeur pour dissocier la justice de l'exécutif et bu boobaa ku jàddu yoon ñu delloo la yoon yooyu mooy les questions de fond des réformes yoo xam ne les gens doivent pour arriver à des changements substantiels dans ce pays-là le président il nomme à tous les emplois maa ngi wax léegi tout à l'heure le cas d'Ibrahim conseil économique et social day jël kiyam rek di xaatim di bind même ay sénat day xaatim rek di bind alors que texte yi même ni ñu ko concevoir woon corps de métier yi comme par exemple les avocats les notaires et cetera ñooy proposer ay noms par exemple bu dee ci ñun journalistes yi CNRA nommé directeur u RTS pour exactement CNRA nommé mais bu booba ñay participer CNRA. ci yéen la ñuy sookeekoo c'est-à-dire dañuy jël ay groupe journaliste parce que vous avez plusieurs corps de métier en votre sein ñoo xam ne ils dans les trucs en ligne ñoo xam ne rajo lañ def ñuy média ñuy télé et cetera ku ci nekk say pair désigné la nga dem CNRA. boo demee CNRA ña nekk CNRA désigné président CNRA entre ñoom. président génne ci loxoom ñooñu noonu maintenant mun nañu désigner directeur de la radio télévision nationale. Mhm, bu ko defee opposition di mën a jàll aussi ñëpp di mun a accéder. parce que parce que en fait RTS aujourd'hui pratiquement ñëppay cotiser pour muy fonctionner mhm. mais kenn mënu si accéder. c'est c'est choquant. Mhm. voilà. ñu ñëwaat ci beneen question ndax temps bi mm-hmm. xooj nañu. Mm-hmm. affaire Guy Marius Sagna rapidement noo ko jàngatee. xam nga mbir moom mm-hmm. seen un scandale. man je l'ai toujours dit euh, y a certains ki moo m'ont opposé en disant que way dafa dox ba booru palais laal grille yu palais États-Unis ñoom ñoo ñu ëpp ay menaces du point de vue sécuritaire les Américains suba su jot dañuy dem di marche dem jàpp grille yu palais taxaw foofu Guy Marius Sagna ne devait jamais être en prison. c'est quelque chose qui est choquant deuxièmement bu ñu wax naan c'est il a défié l'autorité je me porte à faux avec ça parce que en fait yow booy ñaxtu fa fan ngay dem pour ñaxtu fa autorité ba nekk s'il n'avait pas un respect vis-à-vis de l'autorité bu doon marche kon feneen lay jublu di tax mu dem di marche di dem seeti autorité bi bi sénégalais yi fal mu nekk président de la république c'est pour que ku ku dégg des Sénégalais. même bu dee daa foulé au pied l'arrêté Ousmane Ngom ak interdiction préfet. arrêté boobu il faut le mettre de côté à la poubelle et deuxièmement d'autres ont ont parlé de questions sécuritaires en disant que oui il met en péril et cetera il y a des questions sécuritaires écoutez Sénégal on a une un dispositif sécuritaire boo xam ne je suis absolument sûr à peu près que Guy Marius Sagna bi mu jëlee début euh, euh, avenue de la République. identifier nañ ko ba bu yàgg ba localiser ko. piège la. on ne sait pas y de fortes chances.